alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa xabibina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi am mbégte bu rëy rëy rëy rëy ci teewaat fii jàkkaarloog jëm yi ñu jàkkaarloog waaye mën a sànni ay kàddu wax ak mboolem seen àdduna rawatina peuple sénégalais bi yépp laataa ñuy sori ci wax ji dinañu delluwaat ñaanal ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci xeex bii nga xam ne moom lañu sumb ñun ñépp te jubluwuñu si lu luy defar suñu réew ba faw luy defar afrig ba ma faral di wax ni ci sama gis-gis bu gàtt du ma xutbu du ma boroom xam-xam waaye jàpp naa ni ñi seen bakkan rot ci anam gu mel noonu mën nañ leen boole ci ñi nga xam ne dañu ni wooye ay shuhadaa mooy ñi nga xam ne dañoo tegoon seen tànk ci dëgg di xeex ngir dëgg ba leen ciy fekk fekk leen ci lu nag ñu ngi yokk ñaan yàlla na leen yàlla yërëm te jéggal leen yàlla na yàlla defal leen ci këru barzak yu yaatu yi di ma saw ñi ci gaañu it ndax bari na di ma sew ñi ci tëddoon ci kaso bi léeg ci condition yoo xam ne yu xaw a métti la di nuyu peuple sénégalais bi yépp wax nag ni wax ji mën na gudd mën naa bañ a gudd ndax dama namoon gaa yi waaye dinañu dinañu fexe ba tënk ko ndax jamono ji toll li ëpp ci wax mooy waxu suñu candidat le président Diomaye fay nam wax ji mën naa bañ ñu gudd parce que nous avons une élection à gagner de chaque heure compte on a déjà perdu trop de temps moo tax ñu koy essayer tënk rek ci ñaar wala ñetti anam balaa may dugg ci yooyu dinaa delluwaat remercier ñi nga xam ne ñëpp bàyyi nañ seen yitte yoroon seen kuréel moo xam parti la wala mouvement wala personnalité la individuelle ñëw jàpp ci coalition Diomaye président ca boobu jamono gisantewuñu sax ak Diomaye tooguñu ak moom di leen wax dal leen ak jàmm ndax ñun jaayuñu Sénégalais yi nit projet lañu jaayi Sénégalais yi kon su ngeen ñëwee ci projet ngeen ñëw seen projet la di ci beral loxo nag suñu yeneen ñaari candidat yoo xam ne suñuy nawle lañu ñëpp xam ko suñu diggante weesu na partenariat muy la doyen Habib si mi toog fii ak le docteur Cheikh Tidiane Dieye anam yi ma bëgg a aborder mooy li jiitu élection bi lu bari xew na fi damay wax ni su amoon kenn rek ko waroon contesté mooy man mii Ousmane Sonko ndax conseil constitutionnel li mu def ñëpp xam nañ ni tegul ci yoon conseil constitutionnel nee na sur la base de la commune renommée moom dégg nañu ñu ne condamnation am na ra transmettre ñu ko condamnation mais moom moo dem def ay investigation nee na pour dem tirer des conséquences ci loo xam ne loi mayu ko ko parce que loi li mu wax mooy bu dee nit sax am na condamnation boo xam ne juge bi prononcé wul la déchéance civique pour nga génne ko il faut nga appliquer l'article L41 du code électoral mooy procédure bi ñu defoon te mu yóbbu ñu Ziguinchor andi ñu Dakar pour mun ko radier te loolu respecté wuñ ko te conseil constitutionnel li mu def da koo def sur commande. li ci nekk yépp xam nañ ko donc soo amoon kenn ku war a contesté man lay doon waaye defuma ko parce que li ñuy teloon mooy nañu fexe ba projet bi placé ay candidats te projet bi am na ko moo tax ma profité ci woo Sénégal yëpp ñu ànd ak tey ak dal ndax bu dee conseil constitutionnel dafa jël ñaar wala ñetti décision ci fan yi ñëpp tëb ne conseil constitutionnel conseil te ji gannaaw ga ñu xam ni am na leneen ak leneen lu ci laxasu yenn saay ëllëg bu defee leneen ci résultat élection yi mënuñu dellu si ne conseil constitutionnel nañ ci ànd ak tey ak dal d'autant que nag am na ay rumeur yu am amaguñ ci ay preuve buñ ko amoon moom man bokk naa ci yu njëkk a ñëw taxaw ne lii mënul dem waaye dégg ngeen ay rumeur corruption lañu ñu ci dégg gum ci ay début de preuve matul preuve moo tax ma ne nañu dal su conseil constitutionnel defee yoon dafa def liggéeyam jarul jaajëf waaye comme tàmmaloon nañu def safaan wa tamit nañu moytu di gaawantu di jiital émotion li ñu war a demander tey conseil constitutionnel te di ko demander président Macky Sall ndax il peut encore rendre service à ce ndax ki mu defoon candidat am te bëggatu ko ñépp xam nañ ni ay pexem weesu na foo ko mën a natt koo xam ne nekk nekkagoo président de la république waaye fexe nga ba wiiri ba gasal président Kamb ba tey état bi yépp tegu sa loxo te lépp ay mallette rekk a ko moo ko lal xam ngeen ni kooku ku xeeb ay pexem ñun ñi ko xam de nekkoon ak moom xewuñu ko kon nañu gën a takk suñu digg te xam ni élection bi bu jaaree yoon gëw ma ni mun nañu def mooy de 60 pour cent incha allah waaye bu jàpp ni c'est gagné d'avance moo tax nañu gën a fagaru na ndaw ñi dem jëli seen carte électeur topp ci caravane yi di daw baax na waaye munition bi mooy carte électeur de ne ñëpp jëli seen carte électeur ndaw ñeeg mag ñi la ñu yàgg def te mu jig ñu mooy dem voter massivement mais sécuriser la vote également te loolu ndaw ñi rek ko mën voter ba pare toog aux alentours des bureaux de vote yendu fa ba ngoon ku ñëw bëgg a def naka sa noonu ngeen digaale koog moom ba ñu dépouiller ba signer PV ba envoyé quartier général ñëpp am seeni PV loolu nañ ko daan defee nañ ko def nu ko ëppee ren parce que élection yi enjeu bi bokkul ak benn enjeu waaye it ñu continuer am exigence ci ñi nga xam ne ñoo war a organiser élection bi moo tax may président Macky Sall que bu ñu génnee ci élection bi affaire bi jaxasoo demam du yomb. foo mu xam ko moom xam na ay pexe ex candidat waaye su dee bëgg na rendre un dernier service à ce pour demim deminam tane na fexe ba élection yi doon élection yu mucc ay leer nañ ki gaje ñu ne kii la ñëpp ànd félicité ko ñu xam ni lii la yàlla tudd kon dama wax ni loolu parenthèse la woon li jiitu élection yi su amee ku waroon contesté man mii la mais yàlla may nañu président Diomaye jàll may ñu président Habib Sy jàll may ñu président Cheikh Tidiane Dièye jàll kon sama jëmm amatul solo lu dul ñëw jàpp ci liggéey ñu dox ñu ne ah élection yi xaw naa jaxasoo reporté nañu coow li bëri te may dalal xelu ñëpp nii fa ñu woon amul lu ñu ëmp ci réew mi léegi daal xale yi ne il faut ñu nettali ma lu bëree bëree bëri classement coupe d'Afrique beeg ak yeneen ak yeneen lépp yëg nañ kon xamoon nañu la xew ci dëkk bi di ko suivre comme ñëpp ci loolu ñu doon suivre dëkk bi jaxasoo na yéen ñëpp dégg ngeen ay waxtaan yu am naam waxtaan yu bari am na ay ndaw yu bari yónni na leen ñu ñëw ci ñun wax ndax mënuloon ñàkk damay wax ni Pastef dañu am jamono ju ñu toll boo xam ne kàmb dafa am wala dafa am benn écart diggante ñun ñi nga xam ne yàlla nattu woon nañu ñu jiite ko ak li ëpp suñuy militant te communication jafe woon ba mënuñoo jottali li ñu bëgg waaye ku am seetlu tuuti di nga xam ni à partir de du mois de mars deux mille vingt trois am na lu bëri lu soppiku ci stratégie Pastef parce que projet boo ko yoree projet de société da ngay évoluer moom bu ma koy tënk ci lu gàtt rek te di jël royuwaay ci diine gi ma gën a xam dama naan am na Makka am Madina am Hudaybiya am Fathu Makka am lu tegu ci fatu Makka jamono jii nag ñi ngi ci mujjanteelu Xudaybiya ndax xam ngeen Xudaybiya jamono ji Makka fitna la woon ba tax mënatul nekk ñu gàddaay dem Madina Madina metti na woon ci xeer yi xare yi am yépp ci Madina la amee ba waxtaan am keroog ci Xudaybiya yonent bi alayhi salaam takk ay jëlee ma fasam ne namm naa Madina namm naa Makka dañuy aji ñëw ba tiim Makka ba di gis les premiers bâtiments ci benn gox bu ñuy wax Xudaybiya yéefar yi takk arme ne leen su ngeen duggee ñu faagaagal leen mu nangu signé pacte boo xam ne moo ko jural dix ans dakal bi mu defaru ci defar ci armeem defar ci société ba keroog bi mu jubloo ci Makka mu ngi woon ci jiite armée bu mat dix mille personnes te guerre amul fi ne nii nag guerre du am bu soobee yàlla ndax élection bii du doon guerre. mu des nag élection bii di fàttu Makka bu soobee yàlla buñ ci paree muy nu ñuy gérer ñaar yooyu ñu dese étape yooyu lañ toll. léeg nga dégg ñu ne dinañu fayu dinañ dóore dinañu lii déedéet il n'y aura de vengeance il y aura la justice parce que loolu lañ ñu jàngal dafa am loo ne xam ne boo ci boo ci nekkee rek mënoo def lu jag neew ñu nag ni impunité totale dina am waaye kii defoon na ma lii faw ma fayu du fi am bu ñu yàlla joxee réew mi mbokk yi est-ce que xam ngeen li ñuy xaar li ñuy xaar xamagu leen ko de li ñuy xaar jaxasoo na rëy na bëri na te population yi toppuñu di daw ci mbedd mi elles seront très exigeantes avec nous tey ñu am bor yu ñu war a fay mooy ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci ñi nga xam ne ñàkk nañ ci cër ñi nga xam ne def nañu ay at ci kaso bi ñooñu ñëpp dañ leen war a fay bor bi te naka lañ leen koy fayee mooy fexe ba gëm-gëm gi ñu amoon ci ñun bu buñ ci mus teggi suñu tànk lu toll ni tarafataay kon waxtaan am na ay ndaw ñëw nañ ma gis waxtaan yi ci ñetti poñ la amul benn bu ñu déggoo nag waaye def nañ ko ci respect mutuel te loolu amoon solo waxtaan nañu ci report élection may leen xalaatu leen ko élection bi mënu leen ko laal bañ ma ne il faut ñu reporter élection bi ndax yow ak diw yi fa ngeen bokk ma leen sama bokk élection mënul justifier report élection sama bokk ci élection mënul justifier report élection gaw mu ni senegal ba mu daj am na ku ma gën a mérité nekk candidat man mii waaye nit ak sa yéene yàlla ak dogalam ku ko xamul rek da ngay sonn bontu bi président xam nga la ñuy wax madame yéen ñi dégg anglais loolu yàlla bind ko ci jëw kenn saa su jotee rek di ko ne kon lu ñu mën def pour élection bi ñu bañ ko reporter def nañ ko dem naa ba ne samay avocat bu leen déposer recours mooy rabat bi tant que figé wuñu liste yi ndax damay bañ ñu jax jaar ci loolu pour mën a reporter keroog bu ñu nee déposé nañu loi assemblée wala dañuy def commission d'enquête parlementaire ci laa woo Birame Souleye mii ne ko non seulement suñuy député dañu voté contre mais nañu attaqué devant le conseil constitutionnel bi ñu génnee liste yi laa jokkoog doyen Habib Sy mii ne ko doyen li ma dégg ci rumeur mooy dañoo bëgg a reporter te fi ko bëgg a jaare xam naa ko dama bëgg nga wootee anciens amis du PDS nga ne leen bu ñu nangu mukk ñu jaar ci ñoom pour reporter élection yi doyen woo leen nga wax ak ñoom 24 heures plus tard mu waa mu jot kook man ne ma wax naa ak ñoom lii lañ ma wax ba keroog barki démb bi ma taalee télé dégg ñu ne doyen Habib Sy dafa bëgg a déposer recours ci laa ko woo ne ko doyen bul déposer recours parce que bëgguma ñu jaar foofu peut-être ñële mun nañ ne amuñu qualité à agir mais yow candidat nga boo déposer ñu ne tu as qualité agir kon bul déposer recours dem nañ ci ba yegg ci foo xam ne ñañ doon yónni ci man ñuy wax ak man dem naa ba ne leen ne leen seen kilifa bu mu démissionné mukk ndax li ma jàppoon man ci constitution mooy suñu démissionné article 31 deuxième alinéa mooy ñëw mooy ñu ngi ci kaw suppléance te boobaa dañuy rebattre carte yi kon bu ngeen gisee may leeral yi mooy wax ji bëri na senegal nag moo ni demee wax ci bëri na da gis ku la xamoon bu baax xam yaay kan mais situation taxaw mu mën a dute ci yow loolu mooy senegal nit nag boo ko wóoloo da ngay def ni Aboubacar defoon buñ ko nee sa waa ji nee na dafa dem démb rañaani saaba yëpp commencé dute moom dafa ne su dee moo ko wax dëgg la waaye nit booy wóolu tant yaa ngi koy gis ñàkk koo gis mu ne jaaral nii nga ne non non kooku dafay juum li mu wax tegu ko fenn fi ñu jaar ba egsi fii li may wax nii am na écart bu am suñu diggante et c'est tout normal mooy Pastef dañ koo songu pendant longtemps mu nekkoon ci position défensive ba ñun gisuñu woon lu dul xeex ak défendre bu ñu continué woon ci fànn googu kon Bassirou Diomaye Faye mii tey du nekk candidat j'ai dû prendre beaucoup de décisions et je les ai prises seul parce que mënuma woon jokkoo kenn bu ma ci jumoon ci benn rek projet bi tey jeex na may sant yàlla c'était pas évident dañuy sant yàlla te juumuñu ci benn defe na kon toll nañu foo xam ne il faut ñuy gis les deux faces de la pièce toll nañu foo xam ne ñenn ñi élection rek lañu gisoon élection élection élection ma leen waaw dinañ dem élection bu soobee yàlla waaye dañ ñoo songu métital ñu nanguñu lu bari si ñu lu mu mën a def ba delloo si li ñu moomoon rek dinaa ko def tey delloo si suñu parti politique ñi doon wax ex Pastef léegi dinañ ne Pastef dellu si na wala dellu si tey delloo wuñu suñuy éligibilité ba ci sama bos man mi te am nañu taxaw ba ci opposition bi ne d'ici 2039 Sonko du nekk candidat yàlla ne samay mbir noppi naa ci bu yàgg waaye tey génnewuñu des centaines et des centaines de nos frères et sœurs qui souffraient dans les prisons ñi doon wax nañu toog bu ñu gañee qu'est-ce qui vous garantit qu'est-ce dinañu gañe waaw par ne suñu gañewul woon xam ngeen ni ku fi njëkk a toog la may njëkk def mooy liggéey bii gars yi sumboon mu yeggali ko kon maak Basirou mii 10 ans la ñuy jël parti bi ñu seeyal ko projet bi jeex loolu yëpp parce que on voulait faire un fétichisme des élections j'ai dit non dinañu dem ci élection bi bu soobee yàlla peut-être ñu doon wax loolu xamuñu man de prison bi ma ne woon suite lañ ma ko jox suite chambre salon double climatiseur télévision ñi fa ñëw gis nañu ma am sama gandim këru 300 mètres carrés di doxantu teg fa sama vélo di pédale waaye est que xam ngeen ni président Diomaye bii pendant 11 ans 11 mois 9 mètres carrés la woon ñu boole ko yeneen ñaari nit xam ngeen conditions yi mu nekkee woon. jooyu ko fen mais est-ce que est-ce que xam ngeen ni li ëpp ci suñuy xale yi ñu ngi woon ci condition yoo xam ne kenn ku ñu fi tegoon ci condition yi boo matul du génn ci prison bi suñu responsabilité en tant que autorité morale mooy suñu amoon prox ndoll génne ñooñu te yàqul dara ci li ñuy liggéey dinañ ko def moo tax nit boo àndeek moom léeg-léeg koy wóolu doylu ko buy def xamoo teyal ba xam rek loi d'amnistie bi coow bu ne dégg nañ ko ci muy deuxième poñ boo xam ne discuter nañ ci dañu ñëw wax ma loi d'amnistie may leen soxlawu ma loi d'amnistie su leen doyee vous abandonnez les charges parce que xam ngeen ni taxawul ñu def nool lieu nit ñi ñibbi seen kër ah ñu ne dee rek ñoom loi d'amnistie la ñu bëgg suñu suñ defee loi Ndam si ça profite waaye instruction bi ma jox suñuy député mooy bu ñu àndee loi d'amnistie bi interpeller leen ministre la justice bu dee léeg-léeg li bokk na ci voté non bu dee léeg-léeg li bokk ci voté oui keroog bi ngeen dajee ci suba balaa ngeen tig Birame Souleye message boobu la délivré suñuy député pourtant dégg naa ci lu nekk ñëw nañu réponse bi leerul voté nañu non teewul waa ba jàll na moo ñu àndi fii ñu nekk nii tey jàkkaarloog sénégalais di wax ak yéen kon dafa am loo xam ne dox na ci stratégie te ñu bëri xamuñu ko te merew ma ci kenn ndax fa ñu bàyyi woon pas parti bi ba ñuy jàpp peut ñoom foofu la ñu toll ba léegi fekk ci gis-gis ak yeneen ava évolué na ñetteel bi ñu wax mooy dialogue loolu suñu position mu ci see changé dañu ne woon kenn du teg pistolet suñu bopp di ñu dialogue loo booba jamono pistolet la woon jamono jii nag bazooka naka la ñuy demee dialogue parce que ñun ku ñu xam ci politique bi ñu commencé ba léegi constance nga ñu xamee gisuñu lu fees suñu bët moo tax nag bu ma leeralee yooyu yëpp di wax ni te li ma wax nii yëpp nag saa suñ ñëwaan ba ñu waxtaan ba noppi dama leen naan indi leen ma sama candidat ñu andil ma Bassirou dinañu toog 3 heures de temps 4 heures de temps je lui fais un compte rendu amul lenn lu ko mës a def te waxuma ko ko amul moo ko waxee ba noppi. mu wax ma lu mu xalaat ñu tënk naka la ñuy doxalee la ca des léegi nag weesu nañu loolu dañuy dellu sant yàlla ndax yàlla dese lu ñu dara de ëllëg bu ñu bindee suñu mémoire lu bari dinañ ko xam ndax xajul fii mbir mi moo raw fi film ko koy xajul fii de waaye dinañ ci yegg si ñu war a dëgmal nag lu am solo muy élection bi mbokk yi élection bi dañ koy gañe incha allah bis ni ki tey bu ñu jógee fii discours amatul futtiku ëllëg ñu nga bëgg a yeewoo ji Ziguinchor bu soobee yàlla daal di commencer campagne bi may lancé appel nag sénégalais yi xam nañ ni bëgg ngeen ñu lool xiif ngeen ñu lool waaye na ngeen ñu comprendre sept jours de campagne lépp xaju si ñu leen koy ñaan rek ku ñu jaarul goxam bu mu mer ku ñu taxawul goxam romb rapidement bu mu mer parce que élection boo amee vingt jours sax mënoo def le Sénégal waxuma laa léegi ñu mu dese la sept jours te génnaguñu Ndakaaru militants yi xamante nañu léeg-léeg nit ñi def ko affaire sama koñ sama dëkk déedéet ñun gañe la ñu bëgg d'abord kon bu dee ay candidat ñoo mën a ñëw toog fii bàyyi seen lépp ñëw toog fii mënoon nañ ne man sama candidat bopp la maa ngi dem kon kenn ku nekk na xam ni patriotisme bi ñuy wax fii la war a feeñee dina doon campagne bu méttee méttee métti caravane lañu ñu mën a def dañuy traverser rek waaye lu ci mën def rek nañ ko ci def mais ñuy ñaan ñëpp li daan am ci mit campagne yi dañu war a jaar itinéraire bi pourquoi defuñu lii mer naa gedd na li tax ñëwuñu sama dëkk li tax wàccuñu nuyu kilifa gi suñu amoon sañ-sañ loolu lépp nañ ko def mais su mënul nekk rek lu mënul nekk rek nañ ñu ko nangul te bu mu tax bu mu bu mu tee ñu gën a takk ndigg yi parce que avenir u la du affaire nit du affaire u koñ du affaire dëkk ñaareel bi mooy dama bëgg nit ñi bu ñu waxati sax lu jëm ci Macky Sall on se de combat Macky keroog bi mu ne man doot nekkatuma candidat la ñu pareeg moom du suñu adversaire waaye am na lu gën a garaaw fuuf mooy candidat wu Macky Sall Amadou Ba bu yàlla ñàkkee bëgg Sénégal dëgg dëgg dëgg rek na ko jox amadu Ba wallaahi yéen xamu leen amadu sénégal yi question bi ñu waroon posé wu rek mooy simple fonctionnaire nu mu mënee yor alal gi yépp loolu rek jar na bañ a woteel kooku maag moom ak kii ñoo bokk liggéey wax dëgg yàlla ñun amuñu dara wala am nañ tuuti waaw fan la milliardu Amadou Baye jóge est-ce que Sénégal dañuy poser question boobu kon loolu rek doy na ñu ne kii mal war lu mun a nekk président réew vous savez man bëgguma ñu dugg ci débat de personne dégg naa ñi naan du dëkk sàngam la jógee ak du sénégalais déedéet sénégalais la fii la juddoo jàngee fi am nationalité def fi tout sa toute sa classe du sénégalais rek gënuma koo nekk sénégalais te it ñëpp jógee ci dëkk yooyu gis nga Sénégal dëkku teranga la ñun ay panafricains lañu ay sénégalais ngi dund feneen ñenn ngi dund fii ku ñëw jaar fi mu war a jaar am kayitam Sénégal la ñun ñëpp bu ñu stigmatiser kenn bu ñu stigmatiser kenn loolu baaxul suñuy natt nañu wax kii est-ce que ay loxoom set na est-ce que bëgg na réew mi est am na compétence yi ma nag première question bi tontu naa ci ba noppi ñaareel mooy bis bu ñu ko joxee réew mi dénk nañu réew mi waa bitim réew xam nga ci samay série vidéo yi ma defoon am na yenn ñaar yu waroon génn waaye jaratu ko benn bi ci moom laa ko defoon ñi ko gis gis nañ ko benn bi ci moom laa ko defoon spécialement mu ngi wër nag di wax yor làmmiñam di wax nee na ñun lay attaqué bukki nag bu yabee waxambaana Amadou Ba mënuñoo yab de ndax dañoo bokk di liggéey yàgg naa jël lu mu warul jël ma ne ko tegal ci suuf xam na jiite na direction générale des impôts mayor syndicat yàgg naa laal lu mu warul laal man vérifié naa entreprise bindu ko ay milliards mu laal ko bëgg ko wàññi ma ne ko boo ko laalee ma diggaale ko ak yow man xam na te taxaw naa assemblée nationale interpellé ko ci li nga xam ne alalu réew mi la mu salfaañe ko ngir bëgg a neex tubaab yi kooku di ngeen ko jox réew mi balaa may de ñu ne compétence compétence wu lan expérience expérience su lan daan daal alalu réew mi kon may lancer aussi un appel kilifa diine yi parce que gis ngeen li ñuy wër di nga nga dem ci même ràngeen bi rek la ñuy jëlaat dem ci kilifa diine yi. waaw réew mi mi ngi en danger dañ ñoo rax ba ana ñan ñoo leen rax ñun ñi neewoon ñun ñoo leen rax ñoom ñoo jékki-jékki mu mel ni xal bu nekk seen loxo ñu gi sànni ci biti ab terroriste di nga ko génne nii ana ñooñu ñoo rax kii gëmul tarixa kii gëm wax waxu picc tey moom la ñu jël bu koo def ci Diomaye manipulation bi dafa doy ku am sa programme wax ko sénégalais boo amul programme demal nga toogi yooyu ñuy wax ay waxu tappale la bi may nekk fële li ma gën a métti ci communiqué bi nga xam ne ñaari président yi génne woon nañ du le fekk ñu wax nañu def li nañu def lii mais le fekk ñu dugalal leen dugal leen ci débat boobu naan y a des gens qui manipulent les jeunes yu ne ñu ne leen dañuy reporter seen élection ñu ne d'accord uñu sénégalais yëpp jóg Sénégal yooyu jógoon contre Abdou Diouf ci jamonoom jógoon contre Abdoulaye ci jamonoom nga ne ñooñu dafa am ñu ne seen gànnaaw di leen financé ay terrorisme ak yooyu nañu respecté Sénégalais yi j'ai beaucoup de respect pour ces anciens présidents mais waruñu leen dugal sax ci yéen il faut ñu respecter peuple sénégalais bi dafa mature egg fi mu war a egg xam li mu war a xam di choisir ses combats kon nañu concentré wu ci l' essentiel le plus grand danger qui guette le Sénégal aujourd'hui s'appelle Amadou Ba te jàpp na ni lépp alal moo koy def may interpeller encore une fois président Macky Sall parce que responsabilité am la ndax schéma bi ñu teg ngir bëgg a def li ñu def ñun xam nañu schéma bi ñu teg pour ngoonu élection bi ñu gaawante ne gagné nañu à tel score gars yi génn FDS yi ñu nekk parce que élection bu ñu xasee ba ñee joxe nañu score rek ñun ñëpp xam nañu c'est très difficile c'est en amont qu'on règle ces questions là te responsabilité la moom mooy président de république kon désormais nous avons un seul adversaire ñëpp xam nañ ni su élection yi jaaree yoon mënul am 15 pour cent ci réew mi mënu ko am waaye li fi mu jaar ba egsi fii tout sa trajectoire loolu la lu voyé naxante jënd fii jënd fële foofu la yaakaar ne mën na koo jaar ba dégg monsieur le président de la république moo tax il va falloir qu'on fasse un large front un barrage contre ce qui se trame bi incha allah dañ koy gañe di ngeen dégg président Bassirou Diomaye Faye le jour de l'élection est premier tour am loolu laa ma daane le nag damay bañ a nekk du ma candidat bi wax waaye dama leen namoon ma daane ne waaw merci beaucoup ma daanelee fi ma war a daanelee ndax version français bi sax duma ko def damay bàyyi président wax fi may daanelee mooy ci candidat bi xam ngeen affaire politique dafa doy waar ñun ñëpp ay nit leen kese léeg-léeg kenn ku ne ci ñun dina am ay seytaaneem muy sa xalaat muy ay nit yu ñëw di wax. ay être humain la ñu dong nag di nga nekk situation yoo xam ne waaye est-ce que wóor na ma joxe lii nguur kenn du ko dénkaane ndangam li ñu di ñëw di wax ko defee soo wéetee ne auzu billahi mina sheytaani rajim parce que bu ko may rek nga gis sa bopp li ma def man munoon na tombe ci biram Souleye Diop mii wala ci Abbas Fall mii wala ci a Dieye wala ci Cheikh Tidiane Dieye wala ci keneen ak keneen doyen Habib si mii dafa ñëw seet si ma la seule bu mu jot a ñëw ma seedeel ko ni c'est un homme de mission à son âge c'est un homme de mission parce que dafa sax ma ñu waxtaan ma ne ko bu dee yàlla nattuñu nattu nañu amuñu candidat passif mën na doon nga doon candidat bi mais ce sera pour ceci et ceci et mu ne bu soobee yàlla noonu laa koy defee te boobu ba léegi saa su ma bëggee dara ci moom su ma ko nee léeg léeg li moo mag foofu mun na nekk sama baay waaye lu ma ko wax mu defee ko noonu c'est te homme de mission ma seedee ko ko fii noonee laa koy seedelee docteur Cheikh Tidiane bi nga xam ne candidat la moom it démb rek maa ngi koy seetaan ci tàntante nam gannaaw bi ma seetaanee doyen bi ak tagal bi alors dafa mu dem de ngeen li mu fay jiital son premier temps d'antenne dafa régler problème mu temps d'antenne u Diomaye mii kon di leen féliciter bu baax ci loolu waaye di wax ni mënoon na tombe ci kenn ku ne ay na booj mii mënoon na nekk candidat giraas su ko nekkoon mu jëli fiche keneen ak keneen mais tombe na ci Diomaye dama ko tànn nag wax naa leen ko ci vidéo ba ma koy tànn yàgg na te xam naa li tax ma tànn ko ma gëm ni Sonko mooy joomaay du waxantu du waxantu waaye joomaay mooy Sonko du waxantu bi ñu mujjee waxtaan avant dernière fois bi parce que démb it ñoo newoon ba ndogondoo ci la colonel bi ñëw nañu da ngeen di génn ma ko saa yi demal defari sa bagage te nga defar sa sikkim bi nag alors mais bi ñuy mujjee waxtaan dañu toog waxtaan lu yàgg ñuy waxtaan ci yi nga xam ne mi ngi am te nit ñi yaakaar ni mun na andi féewaloo suñu diggante mu wax ma lu am solo mu ne ma président wallaahi politique soo waroon dox sama diggante ak yow ma arrêté parce que damaa yëkkati doom tuddee la ko te damaa bëgg doom boobu dama bëgg doom boobu Ilaah Midine ma la koy jox comme exemple kon suñu politique naroon boole ma bàyyi politique bi dama xam ni dëgg la ci moom ñaareel bi mooy nit ñaa ngi ne Diomaye comme bëriwul wax ni man nag Diomaye su ñëwee ñii Sonko sax moo tane woon ci ñoom <laughs> loolu nag tiital na gaaya waaye ma wax ma bëgg a seede ni. Diomaye gën a nooy foofu ci ñoom ndax sama reetaan ju bëri ji li mu lekk ci gannaaw ñi ma xam-xam nañ Diomaye dañuy waxtaan benn jour maag moom ak biram sule sama kër boobu affaire yi tar na metti na mën ne ñii billaahi bu ñu jëlee affaire bi Diomaye dama tegal ci suuf président loolu kenn du ko fi def fii amul chasse à amul euh, fayantu amul et cetera keroog ma ne leen indi leen ma joomaay mu ñëw ñu waxtaan waxtaan quatre heures de temps ma koy gunge ba ci bunt bi ma ne xaaral ma seetluwaat ko ma ne ko joomaay ñii il faut lii dafa yomb quoi ñii il faut ñu def nii mu ne ma mukk ci àdduna président mukk ci àdduna bu ñu def erreur yi ñu def ñu kon loolu muy lu ma bëgg a yokk ci seede ci sama digganteeg moom waaye di wax askan wit ni tànnuma ci hasard ndax dafa di sama rakk di sama xarit ñu ànd lu yàgg ma xam li ma xam ci moom nee naa ko Diomaye nit ñaa ngi ñëw di wax rek li mu teel mu ne ma président man dama am kersa ci nit nit du ñëw di wax ma ne ko du ma la déglu waaye ku mën a dugg sama nopp bi bu wëlbati sama xel gisaguma ko loolu ci mbindam la bi may daaneele nag gannaaw bu ma dénkaatee sénégalais joomaay joomaay jëmmam amul solo sama bos amul solo donte dañ naan élection présidentielle la waaye projet la wax ak sénégalais am na ay aspects ci suñu programme boo xam ne nit ñaa ngi ci bëgg a profité wax ji bëri moom dina ci leeral waaye dinaa jox doog ba ca njëkk mooy nee naa ko président jomaay mbirum vice président heureusement bi ñu nee sax lu ñu war a fal la donc pour élection bi dugal nañ ko ci xalaat bi di ko xalaat waaye ñaari choix la am boo gisee xalaat yooyu am mooy hyper présidentialisme bi am ba pare lépp nekk ci loxo benn nit moo tax ki jiite réew mi fim mu ne nii sonn na boobu sonn yam ñu ne kon ci biir pouvoir exécutif bi ci boppam war nañu mën a rééquilibrer les pouvoirs les attributions te loolu mun nañ ko am sans poste premier ministre sans poste vice président ndax boo jëlee réew mu mel ni France ba 2007 modèle bi la ñu amoon à partir de 2007 dañu def seen réforme. mais c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation alors que ñun dañu resté ci c'est le gouvernement qui coordonne et moo tax soo déggee ay réformes coow yu bëri foofu premier ministre mooy dem au charbon su paree bu yóbboo mu takk bagaasam kon ñaar mun na am soit ñu am poste vice président mais sans beaucoup de pouvoir parce que doo boore ñaar ñoo fal jox leen ñu yem ay pouvoir bis bu ñu déggoowul njaaxum am moo tax États-Unis vice-président bi daanaka il est là pour la suppléance au cas où et selon la nature de ses relations avec le président mun na ko yokkal wala mu wàññil ko mais koo xam ne dafa am légitimité électorale mu tolloog président bi nga tolloo leen pouvoir mun na am problème wala nga am un premier ministre qui sera nommé mais ñu wàññi ci pouvoir président jox ko moom pour rééquilibrer au sein de l'exécutif bu boobaa bu contentieux amee président bi arbitré choix la ñuy def. gëm naa ni nag ci mandat bi probablement ah président Diomaye de mooy décider mais peut-être schéma boobu moo gën a plausible ñaareel ba bëgg a daanelee mooy mbirum koppar question franc CFA ce que je veux dire sur la question du franc fa parce que c'est souvent une question qui interpelle beaucoup plus les élites Je crois que le programme a été fait dans des conditions extrêmement délicates et difficiles. Nous pas eu, nous, la possibilité d'y travailler sérieusement, parce que vous savez que quand vous êtes en détention, les conditions d'entrée et de sortie des courriers sont très complexes. Et les dernières observations qui ont été formulées, même par le candidat, n'ont pas pu être intégrées sur cette problématique-là. Mais je veux dire simplement qu'il faut savoir comme une continuité. On n'a pas créé un nouveau programme. En 2019, on a pris position sur la question de la monnaie. D'abord, à travers le livre solution que j'ai présenté ici publiquement, mais ensuite dans le programme. Et notre démarche a été toujours de dire que nous sommes tous convaincus, toutes les élites sont convaincues qu'il y a un problème avec cette monnaie et qu'elle ne colle pas à nos impératifs de développement. et qu'il faut qu'on assume nos responsabilités pour aller vers les détails techniques. Nous toujours dit dans la démarche prudentielle que le ferons dans le cadre d'abord des ensembles sous-régionaux. Et si on ne parvient pas à parce que 90% des pays du monde ont leur propre monnaie à s'en sortir. En tout cas, la plupart s'en comme aspect du programme. Aujourd'hui, nous avons une monnaie dans le cadre de l'UOMA. Ça semble aller dans une certaine direction, mais ça va très lentement. Nous allons venir pour essayer de booster et aller vers les réformes qu'il faut. Mais nous avons toujours dit que notre option, c'était même la CDAO, qui fait un ensemble de plus de 6 millions de kilomètres carrés, plus de 400 millions d'habitants, donc un marché qui a un potentiel énorme, mais si les préalables sont réglés, et ces préalables ne le sont pas encore. Et c'est ça notre option de base. Et c'est seulement si on ne parvient pas à avoir ça que nous considérons pouvoir aller avec notre propre monnaie. Donc, vous savez bien qu'un détenu a des, le programme à a, a, navigué une ou deux fois, mais on n'a pas pu, avant la présentation du programme, faire les dernières observations comme il le fallait. Et donc, il faut lire ce programme comme une continuité. Quand je demandais à l'équipe de démarrer le programme, je leur ai sur la base d'ossature de 2019 et essayez de voir s'il des actualisations à faire. C'est des précisions importantes que des en manque de programme et qui ne peuvent rien nous reprocher de s'agripper sur cette question-là pour inquiéter le monde entier parce qu'ils ne s'adressent pas au Et je tenais à faire ces petites précisions. Je m'excuse d'avoir été assez long. Euh, je ne vais pas faire la version française. Je laisse à, notre candidat, le président Bassirou Diomaye Faye, le soin de clôturer cette conférence de presse. Je vous remercie. beaucoup. Monsieur le Président Ousmane Sonko. Euh, sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre cher candidat et futur président dès le premier tour, Inch'Allah, Bassirou Diomaye Diakhar Faye su ko defee mu waxtaan ak askan wi ci poñ yi nga xam ne tënk na ko ñu mën a jàpp ne daanaka mooy première prise de parole am officielle en tout cas après avoir été désigné comme candidat comme porte-étendard du projet pour un Sénégal souverain juste et prospère dans une Afrique en progrès monsieur le président vous avez la parole Merci beaucoup, Raj Malik. Je voudrais, dans le sillage des propos du président Ousmane Sonko, saluer les leaders et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, participent à cette rencontre d'échange entre le candidat que je suis et le leader Ousmane Sonko. qui est notre leader à nous tous. Je voudrais, dans le même sillage, m'incliner devant la mémoire des disparus et prier pour le repos de leur âme et pour la miséricorde d'Allah Tout-Puissant sur eux. Je voudrais attester aussi et rendre un hommage appuyé à tous ces frères qui, dans les geôles du pouvoir pendant des mois, souvent des années, ont supporté avec dignité le poids de l'épreuve. J'ai été au Cap Manuel à un moment donné avec 37 co-détenus des politiques. Beaucoup d'entre eux n'avaient même rien à voir avec les manifestations. mais c'est par la présence soutenue de PASTEF et de la coalition à leur côté qu'ils ont fini par comprendre en s'intéressant davantage au projet, euh, au leader que nous étions à l'intérieur avec d'autres personnes comme le professeur Cheikh Omar Diagne et massivement à adhérer au projet de PASTEF en prison. Ses frères et sœurs ont supporté cette épreuve, disais-je tout à l'heure, avec beaucoup de dignité. Et je pense que ceux qui sont allés leur rendre visite régulièrement peuvent aussi, au même titre que nous, en témoigner. Monsieur le Président Ousmane je voudrais remercier ceux qui, pendant notre absence, ont tenu la barque de ce projet. Il y a eu la coalition Sonko président. Il y a eu au fil de l'oppression les leaders autour de la candidature de Ousmane Sonko pour enfin aboutir à la coalition Diomaye président. Mais nous nous rendons tous compte que c'est le même fil conducteur qui a abouti à cette coalition qui est aujourd'hui la plus forte dans le cadre de cette présente élection. Et je disais ce matin, c'est parce que tous ces patriotes et toutes ces patriotes sont épris d'un Sénégal souverain, juste, prospère dans une Afrique en progrès que nous nous sommes retrouvés autour de l'essentiel. J'ai rappelé ce matin une discussion que j'ai eue avec le directeur de campagne, Mustapha Mambagirassi, que je félicite pour la coordination remarquable des activités de la coalition. Dans le cadre de la mise en place du directoire, je lui disais que quelles que soient les contingences et les divergences, élevons-nous tous au-dessus de ces contingences et de nos personnes, mais que le Sénégal soit toujours au-dessus de nous. Et c'est ce projet-là qui nous fédère aujourd'hui. Je voudrais les féliciter pour leur engagement constant, leur résilience face à toute forme d'oppression, de diabolisation et de calomnie. Quand il fut peu évident, ils ont été sur les plateaux, ils ont marché, ils ont dénoncé. Ils ont fait preuve de résilience, mais surtout d'intelligence stratégique pour que la coalition soit aujourd'hui ce qu'elle est, alors même que le candidat déclaré principalement leader, incontesté de l'opposition, et le candidat de substitution était en prison. Je voudrais aussi marquer toute ma compassion à tous ces leaders qui ont pris le temps qu'il fallait pour réfléchir à un programme alternatif aussi, comme nous l'avons fait de notre côté, qui ont sillonné le Sénégal en engageant leur temps, leur énergie et des moyens pour aller présenter leur projet de société aux Sénégalais pour une sanction électorale positive. Que ces leaders-là soient recalés, juste parce que au sein du Conseil constitutionnel, un informaticien en trois clics a décidé que votre clé était inexploitable des électeurs qu'on s'est régulièrement inscrits le fichier n'y pas, c'est quelque particulièrement Et j'y reviendrai tout à l'heure, nous devons tous pour qu'on au soir du 24 mars 2024, plus jamais ça au Sénégal. Monsieur le Président, tantôt évoqué des contacts. Je ne reviendrai pas sur tout ce que vous avez dit quant à l'importance et la nécessité dans le contexte. Mais je veux juste faire, si je peux les appeler comme ça, une révélation. C'est vrai que je suis peut-être moins taquin que vous. Je suis un peu plus autarcique. Je suis quelqu'un de particulièrement raisonné de particulièrement raisonnable, de particulièrement sensé, de particulièrement réfléchi. Après les événements de mars 2021, Monsieur le Président Sonko, vous pourrez en témoigner. Je vous suis venu vous voir quand le président Macky Sall était en train de dire ce qui s'est passé au Sénégal ne se reproduira plus. et que les jeunes sur les réseaux sociaux lui disaient, si tu refais ce que tu as fait, on fera pire. Je suis venu vous dire, il faut qu'il y ait des discussions. Vous m'avez dit, mais pourquoi J'ai dit, parce qu'on ne peut pas continuer à nous regarder en chien de faïence entre Sénégalais et à nous menacer d'une deuxième confrontation. Vous avez aussi en toute responsabilité donner votre accord pour que je puisse prendre contact avec quelqu'un de la mouvance présidentielle qu'on pensait être un point d'entrée correct. Le temps qu'on obtienne les contacts et qu'on fixe un rendez-vous, le président Macky Sall en plein Covid a décidé d'aller à Kafrine, répandant en plus le Covid-2, et à Matam, au Fota, en bastonnant au passage des Sénégalais qui n'avaient le tort que de porter le bracelet. le, le, le, brassard rouge, en continuant à menacer tout le monde de ses foudres, en continuant à s'armer, en continuant à recruter pour davantage mater. Les résultat on le connaît. Nous avons considéré que pour discuter, il fallait discuter avec quelqu'un de particulièrement réfléchi, de particulièrement disposé pour pouvoir comprendre pourquoi on cherche à dépasser cette vague dangereuse-là qui allait nous mener forcément aux événements de, juillet 2000, de juin 2023. Malheureusement, on a interrompu les contacts parce qu'il n'y avait pas la réceptivité affichée de l'autre côté. En 2023, j'ai personnellement, parce que j'étais en prison, vous étiez sous blocus. J'ai pris la responsabilité, je par la suite, de contacter son fils après le discours du 3 juillet pour lui dire à partir du moment où votre papa a décidé de ne plus aller aux élections, vous êtes la seule personne à pouvoir l'aider à sortir par ce qui reste de la grande porte. Et que tous ceux qui veulent être candidats aujourd'hui vont l'encourager à continuer la répression. Il s'en est rendu compte trop tard pour essayer de rétropédaler, appeler à l'apaisement, mais le mal était déjà fait. Les morts ne reviendront pas. Les amputés ne retrouveront ni leurs bras, ni leurs jambes. Les éborgnés ne retrouveront pas leurs yeux. Et on a toujours des malades qui sont évacués à l'étranger du fait de cette répression aveugle. J'ai pas été écouté. Au contraire, qu'est-ce qu'on a dit Ils auraient pu négocier quand ils étaient en mars 2021 parce qu'ils étaient en position de force. Mais qu'est-ce que vous avez fait en mars 2021 lors de votre discours du 8 mars Vous avez dit que le président Macky Sall, il reste deux ans. Et que ces deux ans-là, encadrons-le, aidons-le à finir et qu'il transmette ce pays-là en paix pour qu'on continue à le travailler. Il y a eu autre chose qui a été dit, puisque nous sommes dans des moments dits de décrispation et qu'il n'est plus notre adversaire, je pense qu'on peut même ne pas aller dans ces relations-là. Juste pour dire que à quel point moi je à la concertation et au dialogue. Et cela a été tout le temps la posture de Pastef, de continuer à entretenir ce dialogue-là, si tant que les conditions de sa tenue obéissent à des règles ou à une de sincérité qui vont aboutir à des conclusions qui seront convenues, consensuelles, appliquées par toutes les parties prenantes. On n'a pas été écouté à temps et on aurait pu faire l'économie de ces balafres sur le l'image de la démocratie sénégalaise, de frères et sœurs incarcérés dans des conditions extrêmement difficiles, de morts qui ne reviendront jamais, de traumatisés et de blessés qui garderont les séquelles à vie. Voilà Bassirou Diomaye Faye en toute discrétion aux côtés de Ousmane Sonko dans le cadre du projet que nous portons tous aujourd'hui dans la coalition Et pourtant, j'ai fait ça après avoir refusé de prendre le bracelet en prison parce qu'on l'a proposé. Après deux mois d'incarcération, Ils sont venus me dire, ok, on peut te libérer, mais à condition que tu prennes le bracelet. J'ai dit que je prendrai pas le bracelet. Pourquoi Parce que je ne peux pas prendre le bracelet. Je n'ai rien fait. Quand vous aurez fini avec votre ingénieur électoral, mais remettez-moi là où vous m'aviez trouvé, à savoir mon bureau à 22h à 10h d'arrestation illégale. Mais tout ça, a été entretenu par des gens à qui ne profitait pas notre candidature. Après s'en être pris au président Ousmane Sonko, ils s'en sont pris à moi. Même dans les chefs d'accusation de jonction de la procédure me concernant, il y a eu le vol de portable, alors que j'étais en prison. Pour dire à quel point y a eu de l'acharnement pour que la candidature de Bassir Diomaye Faye ne Mais parfois, certaines personnes sont déroutées quand ils sont confrontés à la logique politique du projet de PASTEF et de qui est incarné par le président Ousmane Sonko. Je au leader, le 7 janvier 2023, vous aviez été le premier, lors d'une réunion à laquelle je n'avais pas participé que j'avais un décès, à poser la question du plan B et le bureau politique qui vous a mis en minorité, raison pour laquelle vous, on n'avait que le bureau ne voulait pas encourager le processus de liquidation politique. Je rappelais votre formule qui décrit la logique politique dans laquelle vous êtes tout le temps inscrit, à savoir que le Sénégal n'a pas besoin de messie ni de héros, mais d'une masse critique de citoyens qui sont conscients des enjeux. Puisque vous êtes un Diola et qu'il y a toujours quelque chose qui reste, J'ai complété en disant que ces citoyens-là doivent avoir le courage d'agir pour faire changer les choses. Président, vous m'aviez dit de ne pas parler de Amadouba. Mais comme généralement tu me dis que je suis têtu et qu'on n'est jamais d'accord, même si nous sommes toujours ensemble, je voudrais juste vous compléter. Je crois que j'avais fait un texte que j'avais appelé Bastradamus, prédiction tirée du DAC politique. Je crois que tout ce que j'avais prédit dans, cette, dans ce texte-là, c'est presque réalisé. Alors, quand vous avez quitté le syndicat, vous nous avez transmis Amadouba. Et de la même façon que vous aviez été cette vigie-là pour réduire à sa plus simple expression la catastrophe qu'il était en train de faire au niveau des, des, des, impôts et plus tard au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous avons continué sur cette perspective, dans cette perspective-là. Et en 2016, vous pourrez toujours vérifier ça, Le syndicat autonome des agents des impôts et domaines dans lequel j'étais avec Biram Souley Diop, les Wali Djoubodjan et Eliman Pouy et consorts, a organisé une conférence de presse pour dire basta, ça suffit. Parce qu'à chaque fois que les agents allaient en contrôle fiscal et qu'ils faisaient des redressements à coût de milliards, illégalement Amadouba décidé d'une simple lettre en violation des dispositions de la loi qui dit qu'aucune autorité ne peut sous peine entraver le recouvrement des impôts et droits et taxes de toute nature. y a eu, le pre la première fois qu'il l'a fait, c'était dans un dossier de cimenterie. Vous aviez même, en tant qu'agent, menacé de porter plainte. Et il y a eu un rétropédalage de sa part. En 2016, nous avons dénoncé ça. Nous sommes allés organiser une conférence de presse pour lister tous les dossiers sur lesquels Amadoba avait compromis les intérêts du trésor public et donc des Sénégalais au profit d'entreprises étrangères. Et nous savons tous que cela n'a pas été fait gratuitement. Quand j'ai appris qu'il était impliqué dans des soupçons de corruption et que celui qui l'a fait candidat y a cru, j'ai dit parce qu'il le connaît. Je sais que si c'était moi, Ousmane ne va poser aucun parce qu'il saura que c'est pas vrai. Donc c'est parce qu'on sait qu'il est dans ces pratiques-là qu'on a voulu en savoir un peu plus. Et certainement, l'histoire dira ce qu'il en, en, en, a été un jour. Ces pratiques-là, qu'on a appelées remises gracieuses à l'époque, ont été perpétuées. Et cette année, j'ai dû discuter avec le député Guy Marissagna pour qu'il dépose une demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire autour d'un redressement de 150 milliards qu'ils ont abandonné en ne prenant que 14 milliards. <clears throat> Au même moment, l'ONG Africano-Americanda, si je ne me trompe pas le nombre de morts à la Méditerranée à 6618. On abandonne 100, 100, 100, euh, 14 milliards pour 150 milliards. Et cette pratique-là a été inaugurée, entretenue par Amadouba. Donc cet homme-là, nous le savons très bien. L'expérience de gestion, ok, mais l'expérience d'Amadouba, personnellement, j'en veux pas. Je vous parle d'une expérience de violation des lois, d'une expertise en couba d'une expérience dans les malversations, les détournements, J'ai décidé, pendant ans que j'ai été aux impôts, d'être un fonctionnaire orthodoxe, vertueux, sérieux et compétent au service de mes collègues dans le cadre d'un engagement syndical où j'ai contribué grandement à améliorer les conditions de travail et de vie. Il y a encore plus grave le concernant. Quand, on a, quand, vous avez, nous avez légué le projet de réforme du système de rémunération aux impôts, et qu'on a achevé la réforme et qu'il était question de transférer la, euh, le projet au ministre de de, du budget d'alors, Abdoulaye Daoud Diallo, qui avait dit, si vous entendez, si ça arrive ici, je vais signer. Amadou Ba n'était pas pour la réforme, mais il ne pouvait pas résister aux syndicats et à la demande interne de la DGID. Qu'est-ce qu'il a fait On lui a mis la pression parce que le ministre nous avait dit « j'ai pas reçu ». On l'a interpellé, il a dit « j'ai transmis ». Sous notre pression, vous savez ce qu'il a fait Il a fait une fausse lettre de transmission antidatée, numéroté signée de sa main pour nous la donner. Quand on a vu les chiffres, la numérotation par rapport à des lettres antérieures qu'on avait échangées et à la date, on a su que ce pas vrai. Et demander aux agents des impôts et domaines à cette époque-là, à savoir en 2014, ils vous diront qu'on l'avait, on avait même attaqué ça dans le le, le, le, de la DGID. Il y a encore pire, mais je m'en arrête là. Le projet pour lesquels vous avez fait le choix, qui entrent en droite ligne de votre logique politique. Vous n'avez jamais mis en avant votre propre personne. Au-delà de l'épisode du 7 janvier 2023, je me rappelle, quand on a reçu la GPS un jour et que les jeunes disaient que nous donnerions notre vie pour toi, vous lui avez dit personne ne doit mourir, parce que si même j'étais pas là, vous de continuer le projet. a chaque fois d'autres épisodes où vous avez mis le projet en avant, vous êtes mis en retrait pour montrer à tous ceux qui gravitaient autour de l'organisation qu'il l'important c'est pas la personne. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'important c'est pas vous. L'important c'est pas moi. Et si ça ne tenait qu'à ça, ces braves hommes et femmes qui sont aujourd'hui regroupés autour de la coalition Diomaye n'auraient pas continué le formidable travail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

Et ils font les choquer, non pas parce que la proposition les heurte sur le plan de la scientificité ou de la technicité, mais c'est parce qu'ils veulent rassurer leur maître. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc nous devons être en mesure aujourd'hui de chercher les voies et moyens, dans le cadre de la CEDEAO ou de l'UEMOA, comme vous l'avez dit dans votre livre Vision, Solutions pour un Sénégal nouveau, qui sous-tendait aussi le projet, Mais aussi, quand on ne pourra pas convaincre nos partenaires d'aller dans le sens qui le meilleur pour nous tous, on ne peut pas indéfiniment renoncer à acquérir ce pan, ce important de, so, de, de, notre souveraineté et cet outil particulièrement euh, intéressant euh, sur le financement de notre économie. pour ça que dans le siège de la proposition qui a faite en 2019, on a repris cette proposition. Pour ce de la vice-présidence, effectivement, vous l'avez rappelé, moi, c'est hier 14 mars que j'ai jour pour jour à la prison en détention parce que j'ai été kidnappé au sorti de mon, à la sortie de mon, de mon bureau à 22h18, heure illégale d'arrestation. Le 14 avril 2023. J'ai fait 11 mois jour pour jour. Et hier, un mois, 15 jours euh, hier, ils sont venus me dire, bon, ok, maintenant tu, on va réduire tes visites, mais tu ne pourras plus appeler pour parler de politique. Mais comment voulez-vous qu'un candidat à la présidentielle ne parle pas de politique quand il appelle au téléphone J'ai un directeur de campagne, j'ai un mandataire auprès du Conseil constitutionnel, j'ai un autre représentant auprès du Conseil constitutionnel, j'ai un porte-parole, j'ai des leaders dans ma coalition, J'ai des leaders avec lesquels je dois entrer en contact pour étoffer ma coalition. Vous me dites que je ne parlerai pas de politique. Je parle de quoi alors Non, si vous pouvez maintenant juste appeler la famille pour voir comment ils vont. On vous donne le téléphone, mais à défaut, on vous donne plus le téléphone. Je dis bon. La seule option sur laquelle vous avez une maîtrise, c'est de ne pas me donner un téléphone. si vous me donnez un téléphone, je parlerai d ce qui m'intéresse actuellement et c'est parce que je pour pour, pour des motifs Donc, il y a des points sur lesquels on n'a pas pu particulièrement, comme on l'avait fait en 2019, discuter à bâton rompu entre vous, le candidat que je suis, d'autres personnes et même les leaders, pour pouvoir les moduler comme on l'aurait souhaité. Mais sur le plan de l'idée générale, compte non tenu de toutes contraintes qui peuvent intervenir ultérieurement ou dans le process, je pense qu'on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 Et dans ce cas-là, il serait le de larges concertations. Parce que moi, je crois au dialogue. Quand il est franc, sincère, et quand il a un objectif à partir duquel on veut tirer quelque chose de consensuel pour être dans une dynamique progressiste pour ce pays-là. Il n'y a Mais ce qu'il y a à comprendre, et ça, On n'attendra pas 2029 pour le faire. Dans le diagnostic de tous nos programmes, et cela a été ressorti en 2013, où nous n'étions pas encore en politique. Le projet de réforme, les, euh, euh, la Commission nationale de réforme des institutions, la CNRI, a rendu ses conclusions en décembre 2013. En ce moment-là, je pense qu'on était dans l'écriture des statuts de PASTEF, parce qu'on a fait l'Assemblée générale de PASTEF le janvier 14. Donc pendant que la CNRI faisait observer que le président de la République au Sénégal concentre trop de pouvoir et écrase tous les autres pouvoirs, on n'était même pas encore en politique. Donc ce constat-là, si dix ans après, on le partage aujourd'hui de sorte à devoir chercher à y remédier, et c'est parce que ceux qui sont là n'ont pas pris en charge les conclusions de la réforme, de la, la Commission nationale de réforme des institutions. Et on se rappelle tous de ce qu'il avait dit quand il l'a reçu. Je ne prendrai que ce qui, m'intéresse. Il nous faut donc réduire les pouvoirs du président de la République. Et si on a un candidat qui veut être transparent, qui n'attend pas d'être élu pour supprimer un poste de Premier ministre, pour le reconduire après, mais qui dit que dans la perspective de la réduction du pouvoir du, du, du, du, président de la République, même si la Commission nationale de réforme des institutions dit simplement au sein de l'exécutif qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. Parce que l'institutionnalisation du gouvernement dans la Constitution de 2001 même procédait de cette logique-là, de renforcer le pouvoir, le gouvernement, et de rééquilibrer un petit avec le président de la République, ce qui n'a pas été fait. Donc, il propose qu'il y ait cet, ce rééquilibrage entre le président de la République et le Premier ministre. Donc, s'il y a quelque chose qu'on aura à me reprocher, en tant que président de la République, ce sera de me délester de beaucoup de pouvoir pour rééquilibrer avec celui qui sera le Premier ministre sous, ma, euh, sous mon magistère. Mais je disais qu'il fallait aller plus loin. Et c'est effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas eu ces échanges-là n'a pas que qu'il y a des, des aspects que vous avez relevés tout à l'heure avec pertinence qui n'ont pas été ressortis. Mais la logique reste que il faut réduire les pouvoirs du président de la République. Donner plus de prérogatives au Premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, de remplir correctement missions et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire. Je pense que ces deux dernières années-là, l'essentiel de tout ce qu'on a connu au Sénégal est dû à des décisions de justice. On est arrivé même pour illustrer le fait que le président de la République écrase le judiciaire, que des décisions rendues par des juges ne soient pas appliquées. Parce qu'on était juste dans une logique d'adversité et de liquidation d'un adversaire politique que le président qui est le, le, le, le patron de l'exécutif et donc de l'administration a dit à, à, à, aux agents de l'administration de ne pas appliquer la décision de justice. Donc, ces faits-là doivent cesser. Et on rendrait un grand service à ce pays-là. On perd beaucoup de vies dans ce pays, de blessés, beaucoup de dégâts, beaucoup d'énergie négative finalement, on est en train de compromettre ce qu'on a de plus sérieux, à savoir la cohésion nationale. Juste parce qu'un homme veut concentrer plus que ce qu'il ne peut supporter en termes de pouvoir. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de restaurer la dignité de la justice. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de rééquilibrer ces pouvoirs-là pour que le Sénégal soit une vraie démocratie. Et je m'engage à ça Et j'ai lu beaucoup de programmes de candidats qui ne sont finalement pas été pris ou qui sont pris, comme le cas du doyen Habib et du président Cheikh, Cheikh euh, Jay. Euh, Nous arrivons tous aux mêmes conclusions et à la même solution, fondamentalement. Les autres aspects, c'est aussi le foncier où on a une commission nationale de réforme foncière. où les conclusions ne sont pas appliquées par un manque de courage politique. On oublie que les ressources ne sont pas simplement les ressources extractives ou minières, et que les ressources ne sont pas simplement les ressources financières qu'on peut tirer en levant des impôts. Le foncier, c'est une ressource extrêmement précieuse. L'ensemble des candidats aujourd'hui veut bâtir son programme économique sur l'agriculture. Et on ne pourra jamais faire ça avec la loi sur le domaine national qui dit que les terres n'appartiennent à personne, qu'on ne peut pas valoriser, qu'on ne peut valoriser auprès d'aucune banque. Aucune banque ne s'engagera à financer un projet agricole quand la terre est un bien qui n'appartient pratiquement à personne. Pas possible, tous les banquiers vous le diront. Donc les réformes foncières que nous entendons mener pour soutenir cette agriculture-là et la financer convenablement. Mais c'est cette réforme foncière-là qui doit octroyer des titres fonciers à des coopératives d'exploitation, et vous l'aviez déjà annoncé dans votre livre Solution pour un Sénégal nouveau, à savoir les petites exploitations familiales. Et c'est un modèle qui a réussi un peu partout, notamment au Vietnam ou dans d'autres pays. Sans cela, il n'y aura pas de souveraineté alimentaire dans ce pays et nous continuons toujours à rester sur ce fil conducteur-là de la souveraineté de notre pays, pour lui garantir une prospérité et en réformant les institutions pour qu'on ait une justice véritable dans ce pays-là. Il y a un autre point, et c'est sur ce dernier que je vais m'arrêter parce qu'on ne pourra pas faire le tour aussi de certains aspects du programme. C'est le point qui a trait à l'hydraulique rurale. Moi, je le sais pour l'avoir vécu. Quand j'étais étudiant, on n'avait pas de robinet chez nous. J'étais à l'ENA, on a pris nos, nos, nos, notre bourse là qui avait augmenté par rapport à l'université. À un moment donné, on les a payés d'un coup. j'ai pris ça, je suis allé creuser pour avoir un robinet chez Et à partir de ce robinet-là, d'autres ménages qui n'avaient même pas ces ressources-là se sont branchés. Ils ont eu accès à l'eau potable qui leur évite énormément de maladies. Mais depuis qu'on a fait les délégations spéciales sur l'eau, moi je paye plus d'eau dans la facture au village que, que ce que je paye à Dakar. Alors qu'il y a plus de ressources à Dakar que dans les villages là qui sont totalement paupérisés. Donc, il nous faut aussi revoir la gestion de l'hydraulique rurale parce que les ménages dans les milieux ruraux sont en train de souffrir terriblement. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de notre programme que vous avez vu. Je sais que vous en êtes d'ardents défenseurs parce que de la prison, j'ai pu suivre vos débats. Pas plus tard qu'avant-hier, je suivais avec délectation Abdurrahman Diouf, le président Abdurrahman Diouf, plus euh, El Malik Ndiaye. Et hier, avant de sortir, on avait déjà commencé à regarder notre doyenne euh, Aïdem et le doyen Abibsi. Et je vois que partout, vous avez tous été d'excellents défenseurs de ce programme-là. Et cela atteste simplement d'un fait, pour conclure, c'est que nous tenons tous sur la même corde. C'est ce projet qui nous fédère tous et qui doit sortir le Sénégal de ce désespoir-là qui envoie ses, ses enfants par, par, par milliers mourir dans les vagues de l'Atlantique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous, nous allons accélérer avec le président. Merci, merci. Merci, merci. Si vous regardez bien, Biram Souley ne tient plus. Donc euh, le Ndogu, c'est dans quelques minutes. Nous allons laisser le président Ousmane Sonko procéder ensuite. Nous allons faire peut-être une petite pause ndogu avant les questions. Oui, non, je parce qu'il toujours quelque chose am na loo xam ne toujours dañ koy fàtte mooy ndeyu mbill gi léeg-léeg dinañu remercier ñëpp wax ci ñëpp waaye dañuy fàtte ndeyu mbill bi tey dama bëggoon remercier féliciter màggal bépp militant Pastef bépp militant ak militante Pastef jàmbar ngeen gor ngeen patriotisme bi ñuy wax dëgg dëgg dëgg wane ngeen ko di leen bu baax ndax li Pastef subir ci at yi bi senegal di Sénégal ba léegi amul formation politique bu ko subir waaye taxul kenn xaddi taxul kenn démissionné taxul kenn transhumé ku ci génn kaso ci lay gën a am détermination kon bu dee dem nañu ba lii am ba ñëpp ñëw jàpp si dafa fekk ngeen nekkoon fii je vous rends un vibrant hommage te suñu xel dal na suñu xel dal na ni ku ngeen gunge rek dina yegg fi mu jëm bu soobee yàlla merci beaucoup Bon, nous allons... beaucoup. Nous allons prendre rapidement deux questions avant de, de clôturer l'événement parce que c'est l'heure du Ndogu. apparemment oui Al un micro là-bas c'est bon donc j'ai pris